màggal Touba ren jii ñu nar ko amal ci jamonoy mbas mii di coronavirus loolu tax ba ministère de la santé yabal fi délégation bu takku ngir ñu amal ab tukkib nemmeeku ci barab yi nga xam ne mbooloo dina fa daje ci jamonoy màggal gii ginnaaw bu ñu nemmeekoo yooyu le barab ginnaaw nemmeeku yooyu le barab délégation bi amal nañ ab ziar ci kanamu Cheikh Bass Abdou Khadre mi nga xam ne moom moo jiite comité d'organisation bi docteur Bousso mi nga xam ne moom moo jiite boobule délégation mi ngi xamal ne seen xel gën na daal ci dispositif yi nga xam ne fekk nañ waa dëkk bi jël ko. am nañu ay rencontre ak waa région médicale waa district bi aussi am na ay bërëb yoo xam ne dem nañ visiter ko lu mel ni euh, jumaa ji. Euh, loolu yëpp si pour xool naka la ñuy tëralee stratégie bi nga xam ne dinañu may ba nga xam ne euh, incha allah bu ñu duggee ci euh, gàmm màggal bi dinañ ci dinañ ci dugg ak jàmm salaam génn si te du ñu am benn problème ci wàllu mbas mi. déjà bi ñëwee fekk nañ fii dispositif boo xam ne am na solo te loo loolu dañ koy rafetlu donc gis nañ ni waa dëkk bi xaaruñu bu ñu jëlee exemple jumaa ji moom dis dispositif boo xam ne vraiment am na solo trop boo xam ne dina mën a may ñi nga xam ne dinañ ñëw di ziar dinañ mun ziar ci ni mu gënee. Euh, ci wàllu aussi dispositif bi am na yeneen yoo xam ne ci wàllu faj bi ci wàllu laboratoire bi aussi waxtaan nañ ci ak euh, district bi ak région bi euh, jël nañ décision ni dinañ ko yokk parce que loo xam ne loo am solo la comme nit yi dañuy bëri ci gàmm ci màggal bi donc il faudra que ñu indi ay jumtukaay yu bees. comité d'organisation bu màggalu Touba ren ji ci ndigalu xalif général des mourides ñu amal fa ab bànqaas bu yees boo xam ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñoom it fekkee woon nañ jataay boobu ginnaaw bu ñu rafetloo délégation bi nga xam tegoon na ko fi ñoom it ñi nga xam la ne danañ gën a bàyyi xel ci mbas mi. xeba jàngoro ji du law benn yoon ci jamonoy màggal gi. porte parole bi ci boppam moo ñu invité woon pour ñu ñëw fekkee ndajem délégation bi jógee ci ministère de la santé ak euh, comité d'organisation bi. li waral loolu nag mooy xam nga ren xalif général des Mourides euh, Serigne Mountakha Mbacké dafa euh, jox euh, ndigal kuréelu comité d'organisation bi mu lëkkalook euh, ñuy liggéey ci mbirum santé pour jàppale leen ci comme mbirum santé lañu dénk nag ñun muy benn unité boo xam ne unité bu beesale ci biir kuréel gu bees la ci biir comité d'organisation bi li ñu war mooy liggéey ak ministère de la santé xam naa loolu moo tax euh, Serigne Bass Abdou Khadre bi mu waree recevoir waa ministère de la santé yi mu wax ñu ñu ñëw fekk si ko ma ànd ak membre comité bi ñu ngi taxaw pour ñu mën a lëkkaloo parce que loolu mooy ndigal li ñu boole force yi nga xam ne yëpp ñu ngi liggéey ci mbirum santé ci biir màggal gi pour liggéey ak ministère de la santé màggal si màggal Serigne Touba waaye daanaali ci biir màggal bi corona bi loolu moo tax ñu ñëw fekkee ndaje mi ba xam naka la ñuy ministère bi ba yokk communication bi yokk dispositif dépistage bi ba euh, feebar bi mbas mi du am benn jafe-jafe ci biir màggal bi. di fàttali rek ne. boobu la délégation bàyyi ko ci ministère de la santé ñi ngi amal seen tukki nemmeeku ci dëkk bu sell bi diirum ñetti fan